Oustaz Mor Thiam yegg si naa salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah barakatu Hadj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziar. jërëjëf Oustaz yóbbalu bés bi. waaw Hadj Babacar yóbbal bi tey jii dafay ñëw rek ci lu ñoo tuddee xos ci wàllu mbay nga xam ne baax na lool nag yëfi taalibe la macha allah eh, dana baax ci baykat yi mooy ñetti turu yàlla. Allah latif xabiir. ñetti tur yàlla yooyu ngay jël jàng ko ñaar téeméer yu manqué juróom yaa allah yaa latif yaa xabir yaa allah yaa latif yaa xabir xam nga ni ñaar téeméer yu manqué fukk ñaar téeméer yu manqué juróom mooy tollook allahu muti mooy tolloog allahu latif loolu nag soo ko jëlee jàng ko ci lim boobu ba noppi boo koy jàng boo defee juróom nga dem ci suuratul suratul xajji ñi xamul suratul xajji mooy surat numéro 22 nga dem ci aaya juróom benn fukkeel bi ak ñett muy alam tara anna allaha anzala min alsamaai maan fa tusbihu al ardu muxdara inna allaha latifun xabir aaya boobu ngay dugal ci diggante lim yi boo defee juróom jàng aaya bi def juróom-ñeent fukk jàng aaya bi def téeméer jàng aaya bi Hadj Babacar. Mm. nañ ko essayé ba xam mais ni ñu koy def nag mooy da ngay tibb suuf ca tool ba. Mm. jàng ko ci wis ci jiwu bi incha allah. jërëjëf Hadj Babacar jërëjëf oustaz Mor